asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaw iqtihaamu matarin baada hubuuti tairatin qadima min israil fi jumhuriyati dagestan arrusiya maanaam xam nga ñii li tax ah, gars yi ñëw di attaqué si aéroport bi dagestan dafa bari ay yahud yu fa nekkoon bi nga xamee ne Israël nag reyante nañu naar yi ba dàq leen ba nangu seen dëkk génne leen ñu tasaaroo ci àddina bi fu nekk nit yan fa boppam booba la tàmbali ñoom di dajale banu Israël ci àddina bi leen yóbbu Palestine waaye booba nag dañ leen a réew ma ca digg ba ñii ñu ne leen dëkk leen fii ñee ñu ne leen dëkk leen fee te boobeen wax dëgg yàlla arab yi nangu woon nañ la nangu woon nañ loola waaye bañ demee nag ba tubaab bi jàppale leen ba léegi ñu ne leen nag nun waxatunu li ngeen ñu joxoon li ngeen dese woon lañ bëgg ngeen able ah booba la ku mel ni Yaasir Arafat jóg ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk ci reyante bi ba léegi xëy na sax damaa waxoon na tey jii dina waxtaan ci Cham pour nit ñi xam lan mooy ci sànnal Cham ah, waaye ñi dugal fi lii dana jar leeral léegi nag li leen di xamal ne israélien li yàlla wax ci moom mooy dëgg ay bokkat ay tàppet lañu ay tàpp taret lañu dañoo ragal billaahi bu ngeen xamoon ab yahud ni mu ragale ab yahud a ragal ñoom bu ñuy dem guerre sax dañ leen di kuus kuus laa wax de comme ay liir ndax bu demee ba metti duñ ñàkk a bañ a dem ndax guerre bu dikkee ku bañ ñu ku bañ ñu teg la ci yoon ku daw ñu fetal la waaye dañuy yàq seen yére yi ba dañ leen di kuus mboolem soldaar yi àddina soldaaru israélien rek la ñuy gis ne bu demee attaqué ci guerre dañ koy kuus comme goné nga xamné ñi ñii ñoo di ay ragal ba leen ama songee dañoo melni ni jinax lu mus dugg ci seen biir ñi nga daw aw tirki ñi nga daw delu fa seen maam ya ndax ci mu ni ci la bokku am lañu fa dem Ukrainia ya la ñi mu dem ndax guerre ba waaye dañoo daal di jël seeni roppalaan daal ne fes ne nañ dellu daa gastaan fa suñ maam fa suñ bàyyee dëkkoon ñii ne nañ leen dellu ciicaan caan fa suñ bàyyee dëkkoon ciicaan nag ñoom dañoo wër dañ leen a bàyyi ba ñu dugg ca biir hôtel ya ñu wër leen ndombo ne leen kenn du génn hôtel bi dañ leen di foog a delloo leen ca xaj ngeen dellu ca israel ga ngeen nekkoon ndax ay jullit ngeen fa fekkoon dàq leen ñu dugg ci àll bi di taxawàllu kon su ngeen demee ba jullit ñoo am fulaay dagg seen lu bon fii moom du ngeen fa leen si tëj nañ aéroport Tchétchénie it nee nañ benn israélien dootu wàcc Dagestan itam bañ leen téléphoné ne leen gars yi jëlaat nañ aéroplan dawee Israël ñi ngi jëm si daagastaan ña fa seeni bàyyi dëkkoon ñoo fa jëm si la waa dëkk ba màbb dem ca aéroport ba roppalaan ga wàcc ñu daj ji buntu aéroport bu police mënu ca dara ñu dugg ca biir wër roppalaan ga am ngollu ne kenn du fi wàcc da ngeen di delluwaat Israël gi ngeen nekkoon dagam da ngeen faa nekkoon di tooñ ba ñu damm seen lu bon da ngeen di delluwaat fa ngeen doon nekk di tooñ ngeen di jënti comme ñooña waaye fii moom du ngeen fi dugg ndax yéen suuf si ngeen dugg yàq ngeen ko gis naa ko xas ngeen fi génn bañ am jàmm moom da ngeen ñuy abal rek waaye du leen fi dugg mukk loolu indi coow la nii lii nag ah bu ci kenn roy ndax Daghestan ak Sénégal bokkuñu ah ndax Daghestan moom dañoo am sañ-sañ buñ amee lu leen naqar yi ñu taxaw bañ ko te kenn du leen tëj kaso kenn du leen rey ah noonu nag dañoo yërëm sunu askan yërëm goo xam ne ah Daghestan daal du Sénégal Sénégal du Daghestan daal laa mën a wax asalaamaaleykum wa rahmatullah xam nga àddina la ma doon wax ca at yee passé ne buñ demee ba ne dëpp leen ña mujjoon ginnaaw ñooy jiitu loolu laa leen di fàttali àddina buñ dee dox ba ne dëpp leen ña jën ginnaaw ñooy jiitu ña mujjoon ginnaaw ñooy jiitu xam nga américain yi xeex nañ Vietnam am fa defet def fay jaloore yu yu ne am fa defet bu rëy waaye ndeysaan booba jàllalekaayu xibaar yi melut nii luñ bëgg mu feeñ loolu mooy feeñ luñ bëggul mu feeñ du feeñ waaye nag échec bii nga xam ne am nañ ko ci Afghanistan moom da di sàngalu malaan jot ko ne daa yor sa téléphone waaw waaw daal di def direct léegi ci YouTube bi ak wifi ak fépp dox waaw addina mi bi gisandoo leen ñuy wang-wang daw ni ay golo kenn ku nekk di daw ne bu gën gaaw tee ñu dee fi nekk nii alamul islaam yi ci boppam lañ war a génne tubaab yi ñu dem ca xaj malaakam tubaab yëpp mooy Amérique wëtal nañ ko ci Afghanistan mu daw daw yoo xam ne yi dootu ko dolli ba ba muy dee boo gisee Irak tàmbali ñëw Irak di leen dóor ay missile ci seen kan yi Syrie di leen dóor ay missile dañoo dem ba ne ndekete upp baax na ci laax bu tàng ndeke americain mën naa daw wëq di ding dingi ànd tuuti ak sagoom di daw daw yi nu ma nañ daw rawale suñ bakkan il faut ñu dellu ci cosaan il faut ñu teg leen ci yoon loolu moom bu leen ko sax xalaat tubaab yi danañ leen teg ci yoon góor guñ tëkkul ndeyam bàyyam xërëfut mu judd bañ a jong mën naa tegu ci kaw nit ñi ne ne moo leen di ilif loolu te mën a nekk sukkuuru um xulfun ah suñ tubaab moo ko wax dama ne góor guñ tëkkut ndeyam ci farata bàyyim jongut moom ci boppam jongut bu juree doom du jong kooku war naa mën a ilif aw nit tubaab yi bëgg ne dañuy tege ci bopp jullit ñi rek di togg ceeb ak a lekk ci ñu kaw loolu daa mun tëbéy il faut nous résister monde islamique nag laa wax il faut li ñu war a bañ danañ ko bañ kenn mënu ci ñaari dërëm bu ñu notee Sénégal bañ na partit ñeneen dinañ bañ te bu ñoo ne bañee bu yàggee ñu bañaale ñëpp bu yóbboo ngeen dellu seen xel ci ne ñun ay doomi aadama lañ duñu ay golo duñu duñu sëti xirada ak xanaasiir banu Israël ñoom ñoo ñee lañ soppi golo ak i mbaam xuux waaye ñun ñii kenn soppul suñuy maam yi golo kenn soppul suñu maam ay mbaam xuux dafa jot nag ndegam dañ daan dàq waa Palestine ñu leen di bàyyi seeni dëkk ñu di leen dalal xam ngeen ne waroon na ndax Palestine day ba tubaab bi ànd ak Israël sot leen ba ñu génn fu ñu dem dalal nañu leen fu ñu dem ñu fat leen waaye ñoom de bi ñu demee ba gars yi gemb ne leen nag tey ñu delloo ko ci booy booy ba <laughs> bañ dawee fu ñu fu ñu yenee rek ñu ne leen du fi nañ dem Allemagne seet Allemagne eh, seen tànk du fa jëm tubaab yi jàppale wuñ banu Israël lenn lu dul dañoo bëggul ñu dugganteeg ñoom dañ leen a bëgg a ber ñaareel bi ci digg alamul islam yi ci xolub jullit ñi lañu samp banu Israël dinaa digg ci Cham ba mu leer nañ ngeen xam ne Israël amuñu ci Cham aw dooñ amuñu fa dara lañ fa amul ay doxandéem lañ fa seen maam dafa gaddaay ñëw fa waaye tëju ko yàllaa ko yónni nag mu di yónent muy muy sidna ibrahima alayhi salaam waaye sidna ibrahima alayhi salaam ci jinsu saami la bokk dafa am jinsu saami ak jinsul haami ak jinsul yaafus yi man sax wóoruma ndax maa ibrahim ci yaafus la bokk wala ci saam ndax tiir ki ñoom ci jinsul yaafus yi la ñu bokk dafa lañ doon lakke maam ibrahim ca bënd ga waaye eh, nañu doon tëbale jullit ñi di leen génne Palestine ñi di raw yi ñii di raw yi Algérie ñii raw yi dem Tunisie ñii raw dem Liban ñii dem Ordon ñii dem Syrie fu nekk ab jullit yenu fa yenu fa jëme tey jii ñoom banu Israël ñoo yenu seen i bagage di roñ-roñ yi daw ne la ñuy nëbbatu ji pour làq seen jëmm waaye waroon nañu nag ndax ñoom fa ñuy dellu seen i baay fa lañ juddoo woon waaye bañ fay jógee ñoo ne dañ ne alhamdulilah ndegam nit ñi dem nañu kenn mënut a ak ñoom. te lay xamal ne lay xam le ne dañ dañoo sant yàlla ba banu Israël génn ki seen dëkk ya ña nga ne gemb tey taxaw kenn ku ne nee na banu Israël du fi dellu si Allemagne ga tax nag ñu xeex juróom-ñaari at guerre mondiale moom waxaale su ko waaye askanu banu Israël ñoo lakkal àddina wallaay Hitler ku ne xam na ni ci dëgg la nekkoon ndax danoon wi askan moom dafa war a jeex mun ñoo dund ci ko suuf lobby juif yi ne ci àddina bi lobby franc-maçonnerie gi nekk ci àddina bi ñu galgal nit takk seen buum ci baati nit ñi di leen giri fépp fu nit nekk jiite am réew ca ca ñoom nga bokk yaa ngay dem mur de lamentation di sol ay mbaxay ne ñu ñuul di jébbalu ci banu Israël pourquoi ça loolu ah te ñoom nee nañu kenn amul droit samp am réew ci diine ñoom nag ngi ne ñoom seenam réew mënuñu koo sampe lenn lu dul diine ndax nee buñ bu ñu ko sampul diine dañ koy ñàkk wax nañ dëgg ndax seen maam Ibrahima dafa ñëw di wooteel yàlla kon sama sama maam nekkoon na fi yàllaa ko yónni dong lañ mën a wax de waaye sama maam moomul mu mi moom mënut a nekk maam Ibrahima ab tool la fa jëndoon suul fa jabaram mu dee ñu suul ko fa waaye amu faw dooñ wu mu waaye doomam mën a ilife foofa danañ dellu si léegi ci saam ba mu gën a leer incha allah.